gis nañu ko moom ak ñaari soxnaam yeewu na dem na foofule ci biir këram tàllal loxo kii di baayam baayam ñaanal ko mu ànd ak ñaari soxnaam ñu dem voté ji ba ñu vote ba noppi mu gunge ay soxnaam ñoom it ñu dem voté ji euh, moom mi la di Bassirou Diomaye Faye kooku la di Amadou Ba aussi pareil moom. dem na voté ji lay foofule ca parcelle Barthélemy Diaz aussi pareil image wu bassiru Diomaye Faye yaa ngi noonu foofule ca Njagañaaw moom mu dem euh, on rappelle que euh, fii la jógee dakaar dem foofu foofule sa Njagañaaw euh, dem voté ji moom gis nañu ay témoignages yoo xamante ne c'est ses parents qui l'ont par rapport à la personnalité de l'homme, par rapport à, à, à la modestie de l'homme, par rapport aussi à l'avenir de l'homme. par rapport à euh, fierté bi nga xamante ne ñoom nee nañu am nañu ko ci ki la nga xamante ne moo di seen doom di wuyoo ci turu bassiru Diomaye Faye moom mi di Diomaye Faye yéen a ngi gis ces gimage bi mu paree def na une déclaration am na aussi une déclaration qu'il avait fait hier nuit bokk ci yenn candidat yi nga xamante ne euh, peut-être euh, bi mu commencé campagne ak léegi parce que il faut rappeler que ne campagne bi 12 jours rek la ñu amoon moom Bassirou bi muy génn def na une semaine euh, moromam yi nga xamante ne bokk na ak ñoom rawee woon nañu ko. une semaine moom mi la di Bassirou Diomaye bi mu ñëwee kon dafa dabe euh, en une semaine dem na Kolda dem na Ranérou dem na euh, dakaar dem na Mbour dem na Touba Mbacké euh, dem na Diourbel dem na Kaolack dem na vraiment ci région de Sénégal yëpp wër na ko en une semaine moom mii la di Bassirou Diomaye Faye gis nañu le message qu'il la lancé bi mu voté ba pare moo nekk juste na jàmm am na jàmm am ba pare il est dit euh, il a dit moom euh, il veut être quel genre de président ndax moom mi ñuy wax c'est un projet euh, la ñu ko yónni wala projet la ñu ko dénk moom mii nag projet boobu lu mu wundu gis nañu le programme de bassiru gis nañu nangam ak nangam yoo xamante ne moom mi la di bassiru Diomaye Faye mais pour rappel il a quitté Dakar allé à Ndiaganiao pour voter aujourd'hui accompagné de ces deux euh, belles dames on aura peut-être si moom moo gagné deux première daam pour une première fois dans l'histoire du pays euh, kon euh, <laughs> je donne ma langue au chat euh, ñu ñu bàyyi fan la wanante du mu jékki gëtam de toute façon euh, dans trente minutes au plus dinañu xam est-ce que le ministre de l'intérieur dafay euh, prolonger heure u tëjute vote yi wala dañuy yeggali wala dañuy tëj effectivement bureau de vote yi l' essentiel mooy foofule ca France seeni bureau de vote ñoom vingt la jëm pour mu tëj ndax affluence bi nga xamante ne gis nañu ko euh, foofule ca Asnières euh, des des files yoo xamante ne wala rang yoo xamante ne euh, c' est kilométrique mën nañu ne nit yu rang presque à cinq cent mètres taxaw di rang juste pour voter la tax ñuy voter nag euh, je pense que ne euh, candidats yi campagne nañu génn nañu ba pare élection yi yàgg nañoo wax ndax dina doon ay élection yoo xamante ne dina am wala du am je pense que élection yi li ci gënoon a doy waar mooy ndax dina am wala du am mais ñu dem ba ci yàgg gis nañu fi mu jaar ñu ngi fàttaliku dialogue bi ñu ngi fàttaliku yeneen ak yeneen mais je vous donne juste en attendant quelques quelque quelques résultat yoo xamante ne sama naataangoo euh, yaa ngi ma koy yónnee on on on partage ça ensemble euh... attendez waaw ñu ngi may yónnee quelques quelques quelques résultat foofu la ca Koweït Koweït actuellement bureau de vote numéro un euh, Diomaye Faye à 34 euh, électeurs euh, Amadou Ba 10. ñi ci gën a bëri nag gars yi bu ñuy joxee résultat yi xam naa peut-être léegi ñaari favori euh, la nu ko def Amadou Ba le camp d'Amadou Ba ak le camp de Bassirou Diomaye Faye mais faut pas oublier am na énormément de candidats et c'était 19 candidats donc du ñaar kese mën naa ci lim candidats yi Khalifa Sall Mohamed Boun Abdallah Dionne mi ma doon wax euh, sànq mën naa wax ki nga xamante ne moo di Cheikh Tidiane Dièye même bu dee moom dafa ne candidature daf koy retirer conseil constitutionnel bañal ko Habib Sy euh, professeur Daouda Ndiaye Anta Babacar Ngom Pape Djibril Fall ak euh, ban candidat euh, Tass Thierno Alassane Sall defe naa ak Mamadou Lamine jàlloo ak waa PUR moom Mamadou Aliou Dia defe naa ak ñeneen ak ñeneen bisu nga ni. professeur Daouda Ndiaye bi je nomme euh, Anta Babacar Ngom mais bon xam naa gars yi dañuy def ñaari candidat wala yooyu noonu mais je vous rappelle ngeen jouer euh, carte vraiment mooy euh, carte prudence balaa ngeen di annoncé wu ci ay chiffres wala balaa ngeen di joxe ay chiffres nangeen ko vérifier xaar leen ba gis ay procès verbal parce que lii euh, li ci gën a doy waar mooy c'est des moment yoo xamante ne fausse information yi fake news yi dañuy dàqante te fake news yooyu mën na yàq lu bare bare bare bare bare bare mais ay fake news nag li la ci mën a euh, vraiment suturaal mooy boo gisee information balaa ngay diffuser nga vérifier boo vérifier bu dee information bi du bu wér walla boo xamante ne xaw nga cee am jiixi jaaxa nga tegee boor bu dee nag vérifier nga mu doon lu wóor nga soog a nga soog a jàllale mais l'essentiel mooy information yu wóor yi fii ci biir 313 incha allahu dinañu ko séddoo te dina ñu leen ko jox je vous rappelle ensuite encore une fois de plus que. le numéro de téléphone bu ngeen mën a yónnee yéen seeni résultats si vous êtes mandataire wala si vous êtes devant un bureau de vote où on a affiché peut-être les les résultats vous pouvez prendre ça en photo yónnee ñu ko en direct sur 313 euh, euh, digital d'après Dakar Matin on nous dit que foofule ca Koweït bureau de vote numéro 1 Diomaye Faye à 34 Amadou Ba à 10 foofule ca Istanbul Diomaye Faye à 121 Amadou Ba à 52 Cape Town foofu la ca euh, Afrique du Sud Diomaye fay à cent cinquante à cent cinquante Amadou Ba à vingt Euh, résultat Arabie Saoudite nombre de votants 180 ont obtenu Bassirou Diomaye Faye 142 Amadou Ba 32 PUR 6 Khalifa Sall 3 Idrissa Seck 2 euh, Dubaï bureau de vote numéro 2 Diomaye Faye 95 euh, Amadou Ba 28 PUR 7 Euh, ñu dem ci ban bureau de vote euh, je pense que le République Turquie foofu la ca Turquie on nous dit que euh, xawut leer trop bijou résultat Turquie yi dama jàppale tamit ci résultat yi jidda les les trois bureaux de vote Bassirou Diomaye Faye ci trois bureaux de vote yu am foofu la ca jidda du jidda caaroy kaw rek du jidda caaroy kaw waaye Jidda Bassirou Diomaye Faye am na fa 392 Amadou Ba am 100 euh, résultat Ghana Accra Bassirou Diomaye Faye 130 Aliou Mamadou Dia 12 Amadou Ba 5 euh, résultat euh, bi it ban bureau de vote la Boubacar Camara waaye waaye am na candidat yu bëri zéro nag am na candidat yu bare bare bare zéro waaw ñooñu xam naa jarut liir waaye jàpp leen ne am na candidat yu bare zéro <laughs> zéro zéro lool euh, Jéeri Ngoone aussi ma mu mu ngi may jàppale moom tamit en même temps on est en direct sur 313 euh, digital les résultats Turquie Ankara euh, heureusement que Jéeri est là Turquie Ankara 130 130 euh, euh, Bassirou Diomaye Faye 130 foofu euh, foofule ca Turquie Amadou Ba 5 Dubaï bureau numéro 1 euh, kooku di Bassirou Diomaye Faye 130 bureau numéro 1 encore kooku lee di Amadou Ba 76 Arabie Saoudite kooku lee di euh, Bassirou Diomaye Faye 142 142 Arabie Saoudite kooku lee di Amadou Ba 34 Asie localité de Koweït kooku lee di Bassirou Diomaye Faye 34 Asie localité de Koweït kookule di Amadou Ba 10 Afrique du Sud kookule la di Bassirou Diomaye Faye 150 Afrique du Sud kookule di Amadou Ba aussi euh, 10 France bureau numéro 3 Nîmes Bassirou Diomaye Faye 142 Amadou Ba 32 PUR 6 Anta Babacar Ngom 1 Pape Idi 3 euh, ñu demaat France Mantes la Jolie Diomaye Faye 509 Amadou Ba Euh, Amadou Ba 101 euh, waaw donc euh, c'est des résultats yoo xamante ne ñu ngi koy am en direct et en spontané fii nii ci biir 313 euh, digital lii nag moo xew mooy. quelques tendances yoo xamante ne ñu ngi koy jil ñu ngi koy gis ci quelques pays yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci àdduna bi ñoom ñoo nekk ci diaspora bi diaspora bi nag peut-être euh, c'est en faveur de parti bi nga xamante ne moom moo di Pastef waaw parce que gis nañu tournée bi nga xamante ne euh, kii lee di euh, Ousmane Sonko yàgg na ko amal foofule ci euh, biir diaspora bi Ousmane Sonko moom yàgg naa dem waa France on se rappelle de discours boobu nga xamante ne moom mii di Ousmane euh, amaloon na ko foofu foofule ci France bay wax yeneen euh, ak yeneen wala rentrée politique am tamit kooku lee di Ousmane Sonko yàgg nañoo gis euh, taxawaay bi nga xamante ne moom la am ak ñooñu nga xamante ne ñoo di waa diaspora bi mais aussi. c'est faut faut faut jouer li ma leen ko waxoon sànq carte la carte de la prudence parce que kenn xamagul fan la wonante di ma di di mujjee kii euh, gëtam euh, en commentaire euh, en commentaire aussi bu ngeen ñu malgré toutes les sabotages évidents bassiru passera quand même on va essayer de voir je je pars sur Twitter Euh, xool quelque quelques aussi yi fa nekk l'essentiel mooy euh, lépp lu nekk ci wàllum euh, chiffre walla wàllum résultat bu dee ci ay élections encore une fois de plus je vous rappelle faut faire très très attention ci li nga xamante ne moom la ñu tuddee fake news faut faire très très attention ci li nga xamante ne moom la ñu tuddee fake news ñu ngi ñuy wax Mozambique bureau de vote numéro un Euh, je vais de voir si si c'est vérifié. Hum, si c'est vérifié on on on on essaie on va essayer de voir l'essentiel mooy <laughs> wa wala tamit bu may joxee euh, ay résultats taamu naa ci di joxe ñi nga xamante ne moi man par rapport à moi bu dee da nga far carrément ba ma xam ne yow mii da nga far boo ma joxee résultat kat dinaa ci xaw a mais bu ma xamee ne kii ku neutre la te xam ne vraiment réew mi kese kese kese kese moo ko ñor peut-être dina far ci parti wala dina far ci faru ci parti bële mais il faut être de de de très bonne foi kooku di président de la république di Macky Sall euh, tey voté ji na foofu foofulee ca euh, Fatick ànd ak kii di Marième fay sàll moom nag euh, nekkoon na maire gox boobu lee di Fatick yàgg naa voté ji foofulee ca Fatick moom tamit waaye tey dem na voté ji bi mu paree it xam naa ne. lii mooy nguur vraiment ku ku ku dul sóoraane ne bés dina ñëw nguur googu lu nguur googu jeex euh, lu la neex defal ndax yàlla euh, dafay dénkaane euh, dafa abale mayewul bu la joxee dara ci wàllam walla ci pouvoir kaawu Macky Sall bi li président Macky Sall dem voté ji tey am dem en tant que président de la République parce qu'on se rappelle que Euh, moom mi lee di président de la république mandaawam jeexagul le 2 avril lay jeex kon fii ba le 2 avril